on commence avec les euh, béliers Pape Cheikh ñoom tey nee nañ leen euh, seeni ay xalaat yëpp dañ ko orienté si seen i ay acquisition ak gain personnel waaye tey jii koppar yi nga xamante ne ñu ngi ko yaakaaroon fan yi yëpp ñu weesu seen yaakaar du ci tas ndax te dinañ ko jot. taureau yi ñoom tey duñu raté benn occasion pour fësal seen bopp wane seen bopp waaye nañu euh, tenir compte tamit de la l'avis de leurs collaborateurs wala seen conjoint nañu déglu bu baax a baax liñ leen di wax. Gémeaux yi ñoom depuis quelque jours ñu ngi euh, mettre seen bopp un peu en retrait soit c'est par nécessité gis nañ ne euh, dañ koo soxla wala parce que dañu feebar su fekkee ne nag loolu la nañu euh, faju te jël le temps noppalu bu baax a baax. cancer yi ñoom actuellement seen i ay xarit ñu ngi leen di woo di leen nemmeeku di di xool bu baax a baax si li ñu nekk am na ay projet yoo xamante ne tam bëgg nañ leen si dugal waaye ñoom tey seen i ay doom ak seen i ay amour ñoom ñoo leen gën a yitteel. lions yi nag ñoom euh, seen euh, en ce moment seen i ay espoir yëpp ñu ngi ko jël def ko ci seen i ay objectif waaye tey jii dafa mel ni loolu dinañ ko xaw a pause tuuti ndax ci seen biir kër ak seen biir famille am na xëy na ay problème yoo xamante ne tey jii faw ñu régler ko ba tax na loolu moom moo nekk seen préoccupation majeure vierge yi ñoom en ce moment euh, les études ñoom ñooy primé peu importe nag secteur ak domaine bi nga xamante ne euh, ñoom euh, fa la ñuy évoluer bu ñu sañoon nag gën cee xarañ te tey jii ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan pour loolu am ñu ngi am itam li ñuy woowee une soif de se libérer wala une soif de voyager. balance yi ñoom depuis un certain temps ñu ngi xalaat xaalis lu bare bare loolu nag nekk na lu leen di stressé parfois waaye ñoom heureusement ba xam nañ toujours nan la ñuy def ba tirer seen épingle du jeu. scorpion yi ñoom it depuis euh, quelque temps ñu ngi ubbeeku ñu ngi découvrir li nga xamante ne moom mooy écoute ak le sens du partage loolu permettre na leen ba ñu def quelque prises de conscience. sagittaire yi ñu ngi leen di wax ne le travail c'est la santé waaye trop de travail c'est y laisser sa santé liggéey lu baax la ci euh, wérgu yaram waaye bu ëppee rek seen wérgu yaram googu euh, mën na koo yëg bu baax a baax nañu accordé wu euh, un moment de détente de temps en temps ci journée bi su fekkee ne am nañ tuuti jot daal nañu jéem a noppalu récupérer tuuti. Capricorne yi tey ñoom nee nañ leen bu ñu euh, ragal a fësal seen euh, créativité euh, loolu kat mel na ni loo xamante ne ñëpp a ko apprécier te seen i ay xarit tey jii dinañ leen mën a dimbale ba ñu avancer ci ay projet yoo xamante ne amoon nañ ko. verse yi pleine lune bi nga xamante ne mi ngi waaj dina leen jox euh, occasion wu euh, def la fête pourquoi pas en famille wala euh, ñu def rek une fête seen biir kër daal di invité ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen ay am di jàmm seen i ay proches d'autant plus qu'en ce moment ñoom seen biir kër da leen neex ils y s'y sentent bien Euh, poisson yi euh, ñoom neen nañ leen tey ji c'est le moment ñu communiquer davantage renouveler euh, seen i ay contact contact yi nga xamante ne gëj nañ leen dégg nañ ko dekkilaat soxla nañ nag air alors nañu bouger s'il le faut sax ñu partir un peu en voyage comme que week-end bi mi ngi waaj Pape Cheikh li mooy horoscope tey yem ak jeudi avril